mbokk yi compagnie Sénégal c 3 moo ñëwaat ak yéen ci jongante bi mu baaxoo amal at mu nekk tuddee ko yaatal mbindum alxuraan ren di ñeenteel bi édition ku ci bëgg a bokk da ngay bind lu tollu xët ci alxuraan bind sa tur sa adresse ak sa numéro téléphone yóbbu ko ci butigu c 3 bi la gën a jege ci Sénégal wala fépp foo xam ne raabita bi wala fédération bi ëmb jàngalekatu alxuraan yi ci Sénégal am na fa dépôt candidature yi di jagleel ko région yi di maatam Tambacounda Ziguinchor Kolda Sédhiou ak Kédougou ngir gën a suqali mbind mi ci gox yooyu le ñett ñi jiitu ci concours national bi dinañu am neexal yu am solo yu ñu leen jagleel premier bi dina am 6 million deuxième bi 5 millions 500 troisième bi 5 millions kuréel bi saytu concours bi mu ngi fàttali candidat yépp ne ku ci nekk benn dépôt la war a def ak foo ko mën di defee ci biir réew mi kayit wi ngay déposé it yaa ko war a bindal sa bopp ku ci bëgg yeneen i leeral wooteel 76 751 43 42 wala 70 736 36 36. bismillahi wa ala bi ñu Sëriñ Muntaxa te di ko jotal suñuy cant ak Abbas suñu baay Abbas ibn Cheikh Ibrahim wal Mustafayni te di sant njabootu ki yëpp di sant itam mën naa ni waar yóbbu yëpp waaw ñi ciy jullit ak ñi ci dul ndax yéeni sell yi te innamal ahmalu binniyaati di wax ni rek yi xewoon ci njaboot gi daanaka boobu débat mën naa tëju xam état xam ni ñuy doxale xam ñaari doomu aadama yi ki nga xam ni bonne intention mooy nekk ci moom ak ki nga xam ni mauvaise intention mooy nekk ci moom ki nga xamante ni bii mauvaise intention la yore danga nga koy muñee ki yore bonne intention euh, waxoon naa ca gannaaw ni sama cant spirituellement dama koy yeew ci xalif général des mourides dugalaale ci ñëpp diin yam te geneen cant gi itam dañu koy yeew ci raisu réew mi président Macky duniya wi yan ndax itam ni ma ko waxe léegi rek te ñëpp lañuy ñuy sant ñi nga xamante ni bii seen yéene dafa sell ak ñi nga benn benn yi nga xam ni seen yéene xañ na contraire bi la waaye loolu àlla kulli xaalin moo am fépp loolu nu yàlla inde fii waaye li ëpp solo mooy majorité ñi nga xamante ne bii ñoo nu yéenee jàmm dañoo ëpp loolu moo tax te inal xasanaati yusib na sayi ati waaw bu tilim amul kenn du fóot bu tax amul kenn du fomp moo tax képp ku bokk ci dawlu bi ak noo ci mën a bokke ak intention boo man de am yaa ngi ci biir cant gi képp ku bokk ci état bi yaa ngi ci biir cant gi am na lu ñu leen bëggoon a baaxee rek di ko baaxee suñu bopp di leen ko baaxee muy waa dawla bi Lamine Sarr dafay faral di wax ni waa nguur bonuñu da ci am ñoo xam ne xamuñu te wax na dëgg ndax ku bon moom doo dem di ziare ji ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul déedéet mbaa ku bon nekkoon ci itam boo ko ziaree maanaam maanaam boo tili tilimoon nga kon dañ lay bala nga faa jóge da ngay set waaw ku tedd ki loolu lay jariñ waaw maanaam boo tilimee boo ñëwee booy boo dalay fóot ba nga set waaye itam lool doyul moo tax ñu leen di baaxee amul benn secteur boo xamante ne bii ci ñi ŋànk réew mi amul ay benn benn yoo xam ne ñu ngi settantal waxi ku tedd ki loolu nañu koy baaxee ñi ci des rek même bu dee sa patron itam ku yaakaar Serigne Touba da ngay amul fit bu dee sa patron te mu leer na leen ni lii yaa ko ko gën a maîtriser wala yaa ko ci gën a farlu mën nga ko caa baaxe waaw ndax ku bon amu fi xañ na sàggane am waaye ku bon amu fi bu ko defee mbiri nag euh, li ñuy tudde Kara sécurité maanaa euh, ni nga xamante ne bii moo ko sos loolu dinaa ko wax balaa balaa at may jeex dinaa leeral yëpp waaye lii daa mënta ñàkk parce que débat bi dama bëggoon ñu tëj ko waaw am na ñu ñu accusé accusation yi li nga xam ni yoon a ngi ko ci def bu ko defee ba noppi ndax defe naa ni ñëpp maase wu ñu jubadi ñu gisee benn benn yu jubadi itam gis <laughs> boo gisee benn bu jubadi gis fukk yu jub waaw kooku du ci sama wér rek waaw képp koo xamante ni bi yaa ngay ko njaboot ñu mat ay junniy junniy nit waaw foofa gis kenn ku jubadi di nga gis fukk yu jub ca wet ga te inal xasanaati yusim na sayaati kon ñi nga xamante ne bii jub na ñoom nañ leen libéré ñu dellu seeni kër te itam defe naa ni bu fekkonte njiitu réew nag bu lii occasionné na ci amal benn centre d'éducation boo xamante ni bii spirituellement <laughs> defe naa ni kon tamitam mu doon lu légal loo xam ni du ñu def ay eh, wut barab bu la neex rek def ko base boo yore ay xale wala yu demee noonu bu ko defee yii yëpp di ca am yii yëpp mën naa ñàkk daal <laughs> bu dee ñun suñu jëmmi bopp nag wax dëgg yàlla ñun waxi ku tedd ki moo nuy sàmm fu ik fi nii daf noo féete fu nekk waaw tey surul asir féetunu fu nekk wala wakkaana xaqan féetunu fu nekk waaw te yooyu sax ëpp na waaye benn bayit rek benn xarafu ku tedd ki rek nun wax dëgg yàlla moonu féete fépp daal noonu mu waxee ni jël na boppam ak léppam dugal ci jibay yonente mi alayhi salaatu wasalaam noonu laa jëlee sox bopp sama lépp ak sama ñëpp dugal ci miim ak ahmadoom waaw ngi balu ak ñëpp daal tey sant ñëpp nag waaw <laughs> eh, tey sant ñëpp ñu borom ba ñi nga xam ne dañoo amee niyatul xayri ak ñi ame niyatul leneen it teewul parce que niyetu charri mooy mën a tax bu ko iblis ko quoi fe naan d'accord waaye bu fekkee fekkente ni doomu aadama bi yàlla nattoon na ko itam kee nga xam ne niyetul xayri la yor kooku itam malaaka di ko coiffé inal xasanaati yuzhibna sayaati bu ñaawee fii rafet fii noonu la àdduna baaxoo ni guddeeg bëccëg rek ak weer ak jant ak tàng ak sedd ak suba loolu daal moom laa ne woon mënuma ko ñàkk bañ a jàllale